alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi nu ngi ànd di sant sunu boroom cant gu màgg te kawe ba tolloo ak màggaayu sunu boroom ak kawe waayam ak sori goo xam ne sunu boroom sori na ko lépp sikk ak i ayib ak i manqué manqué di ko sellal di ko màggal di ko kaweel di ko wéetal di ko sant di ko gërëm ci xéewal yi nga xam ñu ñu koy defal te it amut fu mu yem dëgg-dëgg sunu boroom ku yeyoo ñu sant ko la ndax bokk na ci xéewal yi mu du defal mooy jàppandal goo xam daf koo jàppandalal ñi ragal yàlla ba ñu xam yoon woo xam ni buñ ca jaaree kat dañ naan coow ba àgg fa suñu borom di leen gërëmee te borom bi mënoon na leen ne bàyyi rek ñuy naangi naangi du ñu xam fu nu jaar bu ko defee bu ñu faatoo suñu borom alak leen te su boobaa du ñu fenn fu ñu ko jooytoo bokk na ci xéewal yi nu suñu borom defal leeral goo xam daf ñu ko leeralal yoonu njub ba doomu aadama xam ni lii kat moo dig njub lële moo dig caay-caay bu mën a topp njub moytu caay-caay loola bokk na ci tawfiix ya ko suñu borom jaarale mooy def gu mu def topp gi ñuy topp yonent bi nekk tegtal ca loola ndax yàlla moo ni kii moom na ngeen xam ni ku ko topp rek dana gindeeku su ko defee kon jaam yooya jël sunu boroom def ko mu di boroom ñu nangoo nekki jaam duñ ko bokkaale kenn te duñ wéeru ci kenn ku dut moom a ah, sunu boroom fayee leen sëmbërtal ca seen xol jëmbët ca ngëm yàlla ak bëgg yàlla ak di ko wéetal dëgëral leen waaye loola nag balaa ko sunu boroom def daa fekk ñoom dañoo nangu nekk gi yàlla nekk seen boroom kontaan ca nangu lislaam nekk gi mu nekk seen diine kontaan ca nangu nekk gi yonent bi nekk seen yonent sallallahu alayhi wa sallam kontaan ci sunu borom bokk na ci xéewal yi mënu defal mbokk yi mooy jamono june ci jamono yi mucc ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca jamono yi yàgg ya saabu demee ba yëf jaxasoo rek boroom bi day yabal ay yonent yonent yooyu ñooy ñëw pour gindi nit ñi tegaat leen ca yoon wa ngir ñu am ngërëmal sunu borom ba fi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jógee ba tey nag ab yonent dootul ñëwaat ci ginnaawam keneen ku fi woote woog yonent kooko day nax boppam wala ay bokkam di ko nax rek waaye yonent moom dootul amati ginnaaw yonent bi borom bi dakkul jamono ju nekk rek muy feeñal ay borom yi xam-xam yu mag ci lislaam ñee dañuy taxaw di wax ñee di bind di wasaare ñee di waar nit ñi di leen fàttali di leen tegaat ci yoon wa nga xam ne ca la yonent yàlla yi nekkoon alayhimu salaatu wassalaam sunu xeet wii nag di xeetu lislaam wi dafa bokk ci jagleel yi ko yàlla jagleel te du masa dañ nag ba àddina tukki mooy lu àddina bi yàqu yàqu lu nit ñi sàggan sàggan borom bi dana mbooloo moo xam ni dëgg la nag du nekk benn barab kese ay benn benn la ñuy wasaaroo ci àddina bi léeg nga gis ay ñaar ñaar ñett ñett danga ko benn barab borom bi dana saxal ay nit ca njub ñoom daal danañ teg seen tànk ca la yonent bi nekkoon ak i saxaabaam ku leen xas ca la ñuy nekk ku leen ŋàññ ca la ñuy nekk ku leen lor ca la ñuy nekk lu ñu leen wax jaral na leen ko ba keroog mbiram sunu borom di yegg si muy tukki àddina gi yàlla na sunu borom booleñ ca ñoo nga xam dañuy sax ca la yonent bi nekkoon ak i saxaabaam ñooñe day bokk na ci tawfiq yi leen sunu borom defal rawatina seeni borom yi xam mooy dañuy fekk ay nit yoo xam dañoo sànk jaar ci yoonu alku nga xam ni kii moom yoon wi bu ko wàccut moom dee ko teree alku ñu daal di koy gindi waar ko tiital ko mu tuub dellu gannaaw bokk na ci seeni mbir dañuy fekk koo xam day nekk ci ay natt nara saarit nara jaaxle ñu defal ko dalal ko fàttali ko ni ko am na ñu ko jafe-jafe fuuf te gën ko loola delloo sim xelam ñu fekk ay gaa yoo xam dañoo silmaxa silmaxa xol dañ naan xàjj ak seeni bët waaye duñ gis njub ñu fexe ba gis loo leen njub te ñu ngi koy jaare ci téere yàlla bi xaw tuuti kon ngay daal dañoo fekkoon nit ñooña dee ñu dekkal leen te loola ñu ngi koy jaare ci téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolaa waral aka bari ay nit yoo xam ne iblis mbaaloon na leen ca mbaalam ga ba teg leen ci gaalan di joow jëm ak ñoom jahannam boromi xam-xam yooyu gindi leen aka bari ñoo xam dañoo toppoon bi daal di nangi nangi ñu gindi leen ñu wëlbatiku topp sunna jam leen nag ay xeej yoo xamante ni ma nga bàyyi ko ca téere yàlla ba ak akub yonenteem indi ay lay yu leer yoo xam ne wax dëgg yàlla ku ko déglu te nga di borom xel soo jëfandikoo sagar xel di nga xam ni lii rek moo di dëgg te dëgg moom genn lay doon du nekk ñaar ñu ànd xam ni ñun jaami yàlla yi jamono bi ñu tollu de tey ak àddina ni mu jaxasoo ak nit ñu ni ñu ndëgmalee am po ak ni ñu soree téere yàlla bi te yàlla wàcce woon téere pour ñu koy jàng di ko seetlu di ko settantal jaadu na moos mokk yi ñu dellu siwaat suñuy xel delluwaat ca la yonent bi nekkoon sallallahu alayhi wa ak yonent yi ko jiitu woon ñu gëm yàlla ñu nekkoon ci seen gannaaw ñu góor ña ñu jigéen ña nekkoon ca te loola mënta am lu dul dañuy delluwaat ci alquran ndax mooy gindeeku kaay bu mag bi te yàlla daf ñoo garanti ni ñooña de bu ñu leen toppee dañuy gindeeku sunu borom ni ulaika alladina hadahum allah fa bi hudaahu muqtadi yonent yooyu ngay dégg ñu lay nettali ci alquran yàlla mu ni ak ña jaaroon te seen yoon ñooñu moom yëgal ni ñoom ña yàlla gindi ñooñu ñooñu yàlla gindi ku bëgg a gindeeku wala nga bëgg a baax dangay fexe mel ni yonent yooya wala nga jéem a jaar fanu jaaroon loolu moo waral mbokk yi kenn ci ñun du àgg ci njombaxtalu ngëm yàlla wala rafetal même bu nit ñi ne diw ku baax la te jaarul fa yonent yi jaaroon yëgle na loola nit ñi rek ko wax waaye amul benn poids fa sunu borom la am njariñ fa sunu borom mooy yàlla ci boppam nangul la sag mbaax te yàlla pour mu nangul la sag mbaax nag faw nga delluwaat ci alxuraan di ca nandaloo faw nga delluwaat ci sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ca nandaloo faw nga fexe nag ña nga xam ni ñoo toppoon ci seen gannaaw nga jéem a def ni ñoom loola soo ko defee même bu nit ñi ne yow amoo solo yëgal ni yow am nga fa solo fa sun borom même bu nit ñi ne baaxoo yow yëgal ni baax nga fa sun borom alxuraan nag bokk yi buñ ci delloo léeg ñu fekk ci ay aayaat yoo xam ni wala ay saar yoo xam ni njàngat yu am solo moo ca nekk nga xam ne ñun ñu gëm yàlla day suñ ca taxawoon di ca def ay seetlu danañ yëg ni ndekete alxuraan ji kat du waxi nit waaye waxi borom la alxuraan kat téere la bu sell te màgg téere la boo xam ni même booy kafant di ubbi ubbi rek nga ubbi rek fa nga njëkk a yam rek nga seet ku la laaj ko fii ma ubbi tey lu muy wax jàpp naa ne boo la waxee danga yaakaar ni loolu nga doon ubbi yow yow la doon waxal yow ndax alquran borom bi da koo wàcc pour nit ñi yépp pour mu di leen gindi sunu xutbay tey ñu ngi koy def ci am njàngat ak i seetantal yoo xam ni dafay mën a yar doomu aadama ci jëflanteem ci wàllu dundam am njàngat ak i seetantal yoo xam ne dafay yar doomu aadama ci ngëm yàllaam waaye ñu ngi koy tibbee nag ci saar wu màgg woowu nga xam ni moom la suñu borom tuddee yusufa alayhi salaatu wasalaam lan moo tax ñu tànn saar woowu te saari alquran yi bari lool yonent yi bari lool loolu ay yëf am na ca daañ ca tudd yenn bokk na ca yooya mooy yuusufa day aw saar la ko suñu borom tuddee woo xam ni ba saar woo ñëwee moom dafa tàmbali rek di nettali ab histoire am ba saar wa jeex histoire ba jeex loolu moom yuusuf rek moo ko am alxuraan ba alxuraan daj amul benn yonent lu dul yàlla day wax nettaleem cuqat ko ci saar wi cuqat ko ci weneen saar cuqat ko ci weneen gis ngeen ko mel ni Moussa alayhi salaatu wasalaam benn borom xam-xam day wax ni Moussa moom dafa mel ni nettaleem moo ci alxuraan mu ne bu buñ doon miraas alxuraan day boo moytuwut ñaari buñ ko xaajee ñetti xaaj Moussa yóbbu ñaari xaaj ya ndax am nett leen ni mu baree ci alxuraan waaye defuñ ko wenn saar bal sax nag sunu borom tuddeewu ko saar moom Moussa Yuusufa nag sunu borom da ko tuddee aw saar waaye saar wa nettali ba ñëw tàmbali ca tàmbali ba rek ba saar way jeex nettali ba jeex nga xam ne ku bëgg a xam ci mbirum Yuusuf dara rek ca saar wa ngay dem moom mu jeex dootoo demaat feneen benn ngoog ci yi nga xam ni ay seet sew sew la yoo xam ni buñ ko seetloo di gis ci saar woowu amaan na wallahu aalam lenn ci borom xam-xam yi dañuy wax ni amaana la tax suñu borom defee noona mooy nettali bi yuusuf daa wuuteeg yeneen nettali ci yonent yi ndax nettali yuusuf histoire famille la te famille ku ne xam ne dajale leen moo gën tasaare leen ah na dajale famille gënee suñu borom jël nettali bi yuusuf rek dajale ko ci wenn saar nga xam ne boo ubbee saar wa rek ca fa mu tàmbalee ba fa mu jeexee ñu ne ah lii kat tëju na ni kër di tëjoo fa mi tëju ci seen biir kër bu ñu amee jafe-jafe ñu réglé ko ci seen biir kër dafa mel ni rek saar yi looloo ko tax a jóg ah kër benn yonent bu ñuy wax yaaquba di bàyyi yuusuf am na jafe-jafe bu fa amoon jafe-jafe biir kër nag bokk na ci niñ koy réglé mooy bu buñ mënee mu yem ca biir kër ga na fa yem mu mel ni sunu borom dafa bëgg a jàngale loolu ci saar wa tax mu ñëw nettali rek mu tëj ko ci diggante saar wi fa mu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ba fa mu jeexee nga xam ne nettali waatu ko ci weneen saar te loola ku ko seetlu di nga gis ni xikma ma rëy rëy rëy la te am njàng mu rëy tamit feeñ na foofu bokk na seetlu yi mooy saar wi dafa mel ni saar yi wàcc màkka la leen tax a jóg ndax jamono bi saar wi wàcc dafa fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci ay jafe-jafe yu tar yu met moom ay saxaabaam ña ngay xiif ñu ngay mar ñu ngay am fitna ña néew doole ña nga leen di duma ña ña ñenn ña génn nañ ñenn ñee sax fa faatu nañ jafe-jafe yooyu te fekk lislaam ji doog a tàmbali jàpp naa nit dina toll ci ay jafeñ-jafeñ foo xam ne ba mun ku ko waxal boo sàggatul bàyyi lam jàppoon ah saar wi daal di ñëw mel ni la netti nettali yonent yàlla Muusa ak Xadir doon ndox ci jamono ba muy wàcc situation yam fekkoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak situation yi ñoo xaw a nuroo saar wi daal di ñëw yàlla di nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali bi Yuusuf su ko defee saxaaba yi daal cee mën a gis seen bopp ana ci naka lañ ciy gisee seen bopp mooy ca la ñuy gis ne yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nuy nettali te moom jàngut dëkk beeg bitib dëkk bi amut kenn ku mën a taxaw ni kii moo jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te li muy wax jàngkat yépp buñ daje woon kenn mënu koo dindi te li muy wax leer na leer goo xam ne safe na safe goo xam ni ñi ko doon déglu daawuñ ci doyal yonent bi di leen netti lay histoire yoo xam ni wóor na ni lii moom ku am xam-xam rek ko mën a wax ñoom suñ ko dégloo day nekk ak dëfal ak dalal ngir ñu gën a dëgmalaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégluwaat ko xam ni kii kat du nit ak ordinaire waaye kii moom bu nee ñu yàlla moo ko yónni wér na ni yàlla moo ko yónni ñaareel yuusufa alayhi salaam ci saar bi dangay gis ni ñi ko fitnaaloon mooy ay mbokki deretam ñu bokk ak moom benn baay ay doomi baayam di fukki nit yuusuf ñëw di fukk ak benneel ba ñu nekk ay doomi baay nekk ay doomi yonent ba noppi jëf ko jëf ju ñaaw ji nga xam ni amut kenn ku koy déglu rek lu dul sa xol day daal di commencé sot sahaaba yi ne ah moo ne yonente bi de ñi koy fitnaal tey ay mbokki deretam lañ abu abu lahab abu ñoo ñu nga xam ne ay mbokki deretam lañ ñoo indi jafe-jafe bi ah yonent yàlla yuusuf ñu gën a jege sax ñoo ko indi doon jafe-jafe ah mbir mi nag ñun war na noo xoolaat yëf yi nag kon ndeke nii la ko suñu borom doo nga doon defe kat nag ndax kee ñi bokk benn baay genn geño genn deret ñoo mën a jëf ju Yuusufa jëf ju ñaaw ji kon yonent bi ay bokkam buñ ko bëggee jëf-jëf ju ñaaw ñun saxaaba yi kat war na noo xam ne kon nii kat suñu borom yàgg na koo defee nii loolu jàpp naa ni nit buy jàmbat jafe-jafe ñu indil ko ko gën a yey ci am jàmm te am jafe bu dee nit la dana amum xel tuuti ñetteel bi yusufa alayhi salaatu wasalaam ci nettali saar wi dangay gis ni ay mbiram mi ngi tàmbalee ci gént Yuusuf daa tëdd ba guddi gént ab gént gént gi dana ñëw ci biir saar wi insha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu loolu saxaaba yi saxaaba yi ne ah moo ne yonent bi moom it mbiram ci gént la tàmbalee kat ndax xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko yàllay tàmbalee jox wax yu mbir maa ngi tàmbali ci gént te gént ak yonent bokkut ak sunu gént ndax moom lu mu gént dëgg la yonent bi lu mu gént rek sallallahu alayhi wa sallam bu yeewoo day mel ni xaruk fajar ñu ne ah kon kat Yuusuf ndekete am na lu nura léegi yonent bi saa salaam léegi saxaaba yaa ngi commencé di méngale gis nañ ni lële dal kële moo gën a metti lii dal kii gis nañ ni lële dal kële ay mbokki deret yu jege ñoo ko ko tegoon kii ay mbokki deret yu jege waaye bee gën a jege ñoo ko ko tegoon gis nañ ni kee yëfam ya mag a tàmbale woon ca gént kii yëfam yaa ngi tàmbalee ci gént kon ak nurowaalee ngi tàmbalee am saxaaba yi xamoon nañ ni yonent bi salaa sallam ku yàlla mayoon la ci firi gént saar wi ca tàmbali ba ma nga naan yuusuf kat yàlla nee na ko yuallimuka tawilul ahadith yàlla nee na yuusufa man maa la jàngal firim gént yuusuf kéemtaanu yàlla woon ci firi gént loo gént rek boo dikkee mu firi la ko géntam gëm firi woon ca biir kaso ba dana ñëw mu nga xam ne firnde la cay doon saxaaba yi ko musaana gént dara rek boo yeewoo da ngay ñëw nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg mu firil la ko ah Omar ibn al-Khattab mu ne yonent bi man day dama gént ah wala yonent bi saa saa moo gént am ab goj bu jóge ca kaw def ndox wala soow yonent bi daal di naan ba mu paree jox Abubakar bi mu paree jox Omar ibn al-Khattab yonent bi daal di koy firee noona nga xam ne noonu lañ toppalantee waaye nag ba mu yegsee ci Omar ibn al-Khattab dafa am lu mu ko jagleel mooy ak dëgër ak ngëm yàlla ci wàllu diine te loola na mu ko waxee woon noonu la amee leneen nag yëf am mu nekk gént gu safaan du ko nettali Abdullah ibn Omar ñëw ni ko ma ne damaa tëdd ba guddi ma gént ñaari malaaka ñëw jàppoo ma di ma tàbbal sawara may yuuxu di wallu di yuuxu di wallu di yuuxu di wallu ba jékki-jékki benn waaye ñëw ni ma cas daal may yóbbu rek ma yeewu bi Abdullah ibn Omar yeewoo gent gi raglu lool mu rus koo nettali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nettali ko magam bu jigéen di soxna yonente bi di Xafsa Xafsa daal di ñëw nettali ko yonente bi yonente daal di muuñ rek noppi daal di ni'ma rajulu Abdullah law kaana yaqumu min al-layl Abdullah ibn Omar day ku baax la waaye ay bu ci boole di julli guddi jeex na daal di yem foofu gént ga loolu rek la ko firee gis nga doomi Abdullah ibn Omar mooy nettali nee na gis nga ba baayam déggee firim gént googa ca la sàlloo di julli guddi ba ni mu faatoo ndax yonent bi firiwul gént waaye firi na ko deel julli guddi rek la ko wax muy julli guddi rek mu jeex kon yonent bi ku mënoon firi gént la ba saxaaba yi xam ko Yuusufa ku mën a firi gént la te feeñ na ci saar wi ko ak nuroo daal dinay ñëwaat juróomeel bi mooy mbokki Yuusuf yi di ngeen gis ni ci saar wi dañoo jël Yuusufa fexeel ko ngir bëgg koo rey sottiwut waaye ñu yóbbu ko ci àll bu sori mu sori baayam ak ni ni ko baayam bëggee woon ah moo ne saxaaba yi dañoo gis ne yonent sa ay bokkam daanaka noonu lañ ko def embargo nañ ko ñetti at mu mel ni ku dëkk ci dëkk bi te dëkkul ci dëkk bi te bañ ci jógee génn nañ ko mu génn Madina kon ak nuroo daal dinañ ñëwaat ba léegi yuusufa ay mbokkam jël ko tëmbal ca teen ba yonent bi ay mbokkam fitnaal ko gëtan ko ba mu génn dëkk ba dugg ca biir xunt ba yuusuf génn ca teen ba dem ca pale ba am jàmm yonent bi daal di génn ca xuntuma dem Madina moom it am jàmm Yusuf am ay bokk yu gën a baax bokk yam bàyyi yonent bi am Madina ay bokk yu gën a baax bokk yam bàyyi maanaam daal yëf yi bu yegg si rek saxaaba yi gis ni kon dafa mel ni xanaa moom Yusuf magi yonent bi la sallallahu alayhi wasallam mag joo xam ne daanaka lu dal kii rek dal kii loolu nag commencé nag di wàññiwaat seeni i coono ak seen i jafe-jafe te xam ngeen ñu ñii sax nit ñu dundee ci wàllu àddina léeg nit dina toll ci ay problème bu dee ku xam ni dëgg nga mën ngaa waxtaan ak moom ci waxtaanin woo xam ne bala moo jóg day fàtte lam yor ci ay jafe-jafe juróom-ñaareel bi Yuusuf kat fam demoon dafa am jafe-jafe bañ tëj ko kaso waaye ba mu génne ca kaso ba ah ca la nekk buur yonent bi kat bi mu nekkee Madina bi mu nekkee Màkka dafa amoon ay jafeñ-jafeñ mel ni ku tëju kaso ndax ñetti at embargo nañ ko yoo xam ne métti na ci moom lool ba saxaaba yi bari faatu ca ba mu génnee ci ñetti at yooyu di nuru ñetti at yi kaso Madina la jëm nekk fa ndax Madina ba mu fa moo di yonent moo di buur mooy borom dëkk ba ba Yuusuf génnee kaso mooy dikk mooy buur mooy borom dëkk bi juróom-ñetteel bi yàlla dafa dëgëral Yuusuf may ko nguur jamono àddina ni wëlbét la naar ba doon wax naan àddina wëlbét àddina wëlbatiku bokkam ya ko jàppoon mu di gone ñu door ko tàbbal ko ca teen ba ñëw andi xabaar bu sikk booba ci seen baay àddina neena na wëlbët ba bokk ya soppiku àddina suppiku ñooña ñàkk yuusuf di buur te xamuñ ci dara ba ñu xëy benn bis ñëw ci kanamu yuusuf te xamuñ ñu kii mooy seen rakk ja ñuy yalwaan ak sarxu ci seen kan ci kanamam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it kadalika ña ko doon ña ko génne woon jamono soppeeku na ba mu néew def fatuxu màkka wax bi laal mu woote ci dëkk bi ñëpp génn mu ne waaw yéen ñi ma bundu xataal ba ma génn dëkk bi ma fi ne tey lu ngeen lu ngeen foog ne loolu laa nar ah lan lan def ma mën koo tuddee ñàkk jom mooy yow de xam nga ni ne musuñu laa xamee ngay def katu lu bon yow de donte ñun ñoo la def lu bon liñ la def yow moom daawoo fayantoo ku baax nga ku sell nga di wax wax joo xamante ni waxi tàngala ngaay la yonente bi ne leen idhabu fa antum tulaqa dem leen yéen ñëpp ku dem këram na nelaw baal naa ko la ngeen ma doon def lépp yuusufa ñu daal di koy génn ca kër ga xañ ko baayam ay at tabal ko kas ci ci teen mu génn ca teen ba ñu yóbbu ko ca marché ba jaay ko mu génn ca marché ba dugg ca pale ba génn ca pale ba duggaat kaso xoolal coono yii mu daj yépp ko tey fukki nit ñu ngi taxaw ci kanamam di ay di ay magam taxal naa ko sa wa tasaddaq alayna ngir yàlla doo ñu sarax dëkk ba daa amatul leen lu ñuy dunde te xamuñu seen rakk la ñuy waxal ba Yuusuf ne waaw ndax yéen a ngi ku seen doomu baay boo ngeen mosoona bu mos a tudd Yuusuf foofa rek kenn ku ci nekk mel ni rek ku doon nelaw ñun la tëpp tëpp nga yeewu e innaka la anta Yuusuf moo yaay Yuusuf mu ne waaw ana Yuusuf kenn ku ci nekk commencé di réccu ñun ñoo bon ñun ñoo saay saay ñun ñun ñun ñun rey ñu sax lu bon yusuf na leen la tasriba alaykumul yawm mooy li ngeen di wax bàyyi leen ko waay tey topp ma leen dara yaxfirullahu lakum yàlla ngeen amal affaire na leen jéggal waaye du man xoolal yëf yi ni mu nuroo kon yii ay yëf la yoo xam ne jàpp naa ni mbokk yi benn boo ci jël rek taxaw ca da daal di gis ni doy na sëkk ndax yusuf alayhi salaam ku tedd la ndax mooy yonent yàlla bi nga xam ne alkarim ibnul karim ibnul karim yooyu yan la ci bokk na ci xew-xewi jamono yi tax ñu tànn xutba ju mel nii bu ngeen seetloo fii ci sunu réew xëy na ci jamono yi weesu am na ay film yoo xam ne ay silsila la musalsalaat yoo xam ne ñu ngi ko def ci nettali bi Yuusuf di ko teg yaakaar naa waa réew mi yépp déglu ni ko gis na ko dëgg la duñ wax amul solo duñ wax baaxut loolu kenn du ko wax waaye nag dafa am ay njuumte yu baree bari yu ca am bokk na ca njuumte ya ba tax ñu tànn xutba ju mel nii mooy ab yonent ci boppam kenn du ko nataal naan film baa ngi nii waxuma sax waxi ay film dagan nag da nga taxumaa jóg tey waaye li ma tax a jóg rek mooy nataal ab yonent naan kii moom mooy Yuusuf kii moom mooy Muusa kii mooy nangam moo xam da jël ak lumière taf ko ca kanam nga moo xam yooyu yëpp daganut ci lislaam loolu dañ ko xam ba pare ñu doog a wax nag ca waxi film ak waxi nangam ñaareel mooy indi am malaaka mu naan kii mooy Jibril malaaka mu ñaan kii mooy malakul mawti mu ñëw yore jëmm loolu dafa xaraam ci lislaam loolu tamit nan ko xam beneen ba ca topp mooy nettali bi ci boppam ni ñu ko rëddee ci film bi dëgg la euh, am na ca yu bare bari nan ko waxee noonu la amee waaye am na ca biir film bi yoo xam ne nan ko waxee wut noona loolu tamit erreur bu rëy rëy la bokk na ci jafeñ-jafeñ ya tamit am na ci yu garaaw nag yoo xam ni yenn ya ay jëf la yu lay wan ni yii ay njuumte la te da lay wan ni kon ñi koy jàngale du wax du duñu ay jullit de waaye buñ dee ay jullit it du ñëpp ñooy jullit mbaa jullit ga des na ndax léeg-léeg kuñ ñu moo yonent yàlla yuusuf muy nangu di nangoo kaasab càmmoñ ku xamub yonent xam nga ne bi yonent daw ko defee noona yooye nag boo ko boolee a ah, nit ñi xir lool ma jàpp ni jamono ja film bay daw ngay ñëw di def xutba ba mel nii amaana nit ñi duñ la dégg ndax booba fekk na nit ñi lu jëm ci image ak film dañ koo bëgg bëgg ay goo xam ni bàyyi leen ñu seetaan ba noppi rek bu ñu paree nga seggal leen loolaa taxoon xutba ju mel nii yàgg nañ ko bëgg a def ñu ne nañ bàyyi rek ba nit ñi seetaan ba noppi waaye bu ñu seetaanee ba noppi nag nañu yëg ne ay njuumte yu baree baree bare am na ca beneen bi ci des nag aji gëm yàlla la muy fas ci xolam loolu du ci ay télé la koy jàngee du ci ay film la koy jàngee déedéet loolu nag xëy na ya ca baax mën na nekk ay wettaliku kaay ya ca bon wala ya cay njuumte ñu xam ne yii ay njuumte la lii daal bi ñu ko boolee dajale ñu gis ni suuratu Yuusuf kat saar la woo xam ne mat naa toppaat ah toppaatuñ ko nag pour ñëw di ko tafsir si déedéet toppaatuñ ko pour ñëw di wax histoire ba fi mu tàmbalee nga xam ne virgule duñ ko ca bàyyi déedéet loolu taxunoo jóg jubbanti ak jooyanti yenn ci njuumte yi nga xamante ni moo ca feeñ loola moo ñu tax a jóg ñaareel bi leeral yenn yëf-yëfaan yoo xamante ni yii kat daganut ci lislaam te am na ca film ba ñetteel bi leeral ay yëf yoo xam ni nit ki da ciy jàng diineem maanaam ab ab yar da caa nekk du caagi nit ki day ñëw daal def benn action rek ñu ne ay saan ci film daal ku ne daal di jug dem nga xam ne bu ñu xëyee maanaam baatat am saan rek moo cay topp déedéet waaye dañuy wax loo xam ni nit ki bu jugee moom da koy mën a pratiquer parce que nettali bi Youssouf nee naa la histoire famille la histoire famille mooy Youssoufa ak i bokkam ci biir nettali bi bu soobee yàlla di nga ci gis ni ndekete ah nit kat mën naa bokk ak nit ndey ak baay ba noppi mu añaanee ko nit mën naa bokk ak nit ndey ak baay mu añaanee ko waxuma laa ne ngeen da ngeen di bokk baay di nga ci gisee ne ndekete kat këru famille yàgg naa am jafeñ-jafeñ kër famille rawatina ay doomi baay yàgg naa am jafeñ-jafeñ néew na moos kër gu samp di këru famille ay doomi baay ne fa lu dul rek da nga fekk ay jàppal bàyyil defe naa ni yonent yàlla bu mel ni yaaquba ak tagg gi ko yàlla sun borom tagg ci alquran lii am ca biir këram kon keneen ku dul yaqub moom taxut di wax ci biir saar wi da nga ci jàngee nit ki li ko yàllay defal ci ay xéewal na koy sant waaye du lépp lay wax am na xéewal yoo xam ne faw ñu di ko nëbb ndax kat borom xam-xam yi dañuy wax ni wala yonent bi salaam mooy wax ni istainu ala qadail xawaij bil kitman soxla yi dee leen ci dimbali koo nëbb yëf yu yëkkati ko rek am na aji añaan ju taxaw kon doomu aadama du lépp lay wax am na yoo xam ne faw ñu di ko nëbb beneen bi ci des mooy doomu aadama ndekete mën naa bokk ak nit deret ba noppi waaye du ngeen bokk deret yuusufa ku ne xam ne ni moo bokkam yii ñoo bokk deret waaye wax dëgg yàlla bokkuñu deret ndax ñoo xam ne ay doomi yonent lañ ak kër ak yonent ni mu war a mën a baaxee ni mu war a joyanti koo ak bu yonent ni mënee tànn ci takkum soxna erreur yu mel nii am fa ak yonent ni mën a waa rek njabootam njaboot gi mën a fàtte loolu lépp jàpp seen doomi baay def ko nii ñu ko def seen baay di jooy ba bëtam yi daal fay jaaree bëgg a silmaxa jàpp naa ne loolu ca ngay xamee ndekete nit daal lu mu baax baax baax fu mu dëkk lu mu sell sell di way sa baay yëpp amul solo ko yàlla moo ko yore moom moo koy joxe di nga ca gisee ni nekk nit dafa war a jàng ni fayantoo baaxul gis nga fayantoo amut solo bis ba nga jekkoo mu wóor la tey jekku nga nga jéggale wallaay keroog di nga am ci ay martaba loo xam ne kaawaay ba dana jege asamaan loolu moo dal yonent bi ca baaleem ga moo dal yuusufa ca baaleem ga moo tax yàlla di tagg jaamam yi nga xam ne ñoom bu ñu jekkoo duñu fayu te loolu tey fayantu koo tey këri famille yu bari bokk na ci li ko tas mbiram fayantu koo nit mën a nekk tuut tànk ci biir famille bi xëy na sa yaay mooy soxna su ndaw sa xëy bi seen boo fekk naa ay gone ngeen xëy na ñi leen fare mag ñi ngi leen doon bu ndoxataal xëy na xëy na comme ni ngeen ko xamee ci société sénégalais bi ni muy dundee waaja gënoon fare gone daal di màgg ba mu màggee yàlla ubbil ko benn société ñu jël ko fa muy fayee ko salaire bu seer yor otoom yor lépp tey moo gën a nekk gone waaye moo yor famille bi tey moo leen di dundal ah bu xelam delloo nan doon ko def ak yaayam jàpp naa di dimbali ñu mu bokkal waaye wallaahi a dimbali ngir yàlla dana amub sag ci àddina amub sag ci ay bokkam amub sag ca yàlla ba pare am ngërëmal suñu borom loolu mooy laa tasriba alaykum al yawma tey moom topp ma leen dara gis nga yooyee naa ko fàtte fàttelu te lii may wax nii kenn ku ci nekk xam ne ne am njàngan mi ngi ci parce que mooy li ñuy dund ci suñu biir kër yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njàngale yoo xam ne bu soobee yàlla laal la ñeenti xutbaa nga ca kanam yoo xam ne benn bu ci nekk saar bi rek la ñuy nekk aaya ya ca rot tàmbalee ko ca fa sunu borom di nettalee tàmbali gént ak Yuusuf ga ba keroog Yuusuf ba muy jéggal ay bokkam naan leen jéggalu leen seen borom moom ngeen amal affaire waaye doon man ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ba yoon wi ñu xaal mu mën a yegg te ñu am ci dégg-dégg man cee istifaada man cee jariñu sunu borom booleen ci ñi nga xamante ne lu ñu dégg jariñoo ko borom bi barkeelal ko rabbana atina min ladunka rahma wa hayyidna min amrina rashada ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid